ndeysaan san heures 53 minutes lamb ji tey day teel a jeex nit ñi teel a ñibbi xale yi bañ fi guddeel kenn ñoom ñaar ñu ngi noonu wax naa leen ko ñu ngi dox latéralement ñoom ñaar ku ci di wër sa morom Abou Ndiassé de day wé day léemu fi lamb ji tollu la léemu na taf ci dënd bi ndeysaan tàllal na loxo ba ndeysaan ma ngay doxee ndeyjoor ba ci yàgg muy doxee càmmoñ moom Abou Ndiassé numéro 2 jaay dooleen ko topp rek di dox ci koom ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar taxaw na sampu Abou Ndiassé numéro 2 ak jaay doole ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar Abou Ndiassé 2 jaay doole mbokk yi ñaari xale yaa ngi noonu. ñom ñaar Abou Ndiassé ngi dox jëm ci saaku yi jaay doole top ko mo ngay ñëwaat ci geew bi li la la yow eh ñi lay def ni yow ah arbitre ne la la taxaw len arbitre ne leen taxawel ah Abou Ndiassé do da indi lu bes ci làmb ji de taxawul ben yoon day gëdd adversaire ba nga yaakaar ne noon la mu doxee latéral ndeysaan mi ngi noonu ñoom ñaar arbitre sifflé waat na Abou Ndiassé de ak Jaay Doole ñu ngi noonu Laurent Ndiago nee naa ko naka ngeen waajalee Abou Ndiassé mu ne xanaa jàpp daan rek waaye xale bi ñuy bëreel est-ce que dina yomb neenu Jaay Doole de la tudd te Jaay Doole moom xam naa moom sama xel dey day day dem ci Ablaye Ngom Jaay Doole. moom nee na lépp luy liggéey rek doole la waaw bañ na ko ba joxe numéro am ne doole bu àndul ak xel loolu lay liggéey moom Ablaye ngoom sama xel dem na ci moom waaye kii di bëre jaay doole la tudd moomit it ndeysaan ñu ngi noonu ñoom ñaar wax naa leen ko kii Abu Ndiaase la duppee boppam doomu nday sita tarkindaa bi Laurent nee na mi xaar rek ñi ko war a jël nañ ko jël ñëpp am nañ combat tarkindaa bi gars yi doon nañ wax digganteem ak Boy Niang waaye Boy Niang de jël na Reug Reug par Gaston Production kon Siteu ku muy xaar loolu la ñëpp di laajte ndeysaan ñi ngi noonu ñoom ñaar Abou Ndiassé de moom lañ jàkkaar lool jaay doole Abou Ndiassé daw na jël jaay doole ndax da koy suru wala Jaay doole jàpp na ca bopp bu ko ruuj waaye Abou Ndiassé daa bañ si giwaan na ñoom ñaar ndax Jaay doole da koy jaay doole wala ndeysaan Abou Ndiassé sukk na benn tànk bi Abou Ndiassé doo jaay doole jaay doole fàq na ko luy xew laa ilaaha illallaah jaay doole fàq na ko wéyale ko waaye Abou Ndiassé daa riposté ndeysaan Abou Ndiassé doo jaay doole jaay doole lu mu bëgg Abou Ndiassé oh dalay doole daan na Abou Ndiassé jaay doole daan na Abou Ndiassé doo ndeysaan mu ngi noonu wuyu ko waay doole waay waay jaay doole waay lay lay la laa doole wuyul film seen takk na waaw waaw xale ngi noonu ñooy lambu lay la laa hey jaay doole ndeysaan jaay doole ngi noonu xoolal xale ya xoolal ma lii image bu rafet bu taaru bi ndeysaan jaay doole ngi noonu nee na leen ma ndeysaan laay laay la laaw fu mu jëm jaay doole lu mu bëgg lu muy wax jaay doole lu muy wax jaay doole lu muy wax jaay doole nee na jàmm ngeen moo leen mën lay wax moom jaay doole ndeysaan jaay doole ngi noonu waaw waaw jaay doole ngi noonu laa ilaaha illallaah jaay doole jaay na doole Abou Ndiassé daan ko jaay doole ngi noonu ey jaay doole jaay doole ngi noonu xale bi def na exploit ndeysaan jaay doole daan na Abou Ndiassé numéro 2 wax naa leen ko ndaanaan xale bi nañ ko bàyyi xel ay doole daan na Abou Ndiassé numéro 2 ndeysaan muy noonu moom jaay doole daysaan ki may seen nii daa mel ne ndaayaan la de sama xarit bi ndeysaan mu ngi noonu ndaayaan la léegi léegi léegi léegi xaalis nee naa ko léegi xaalis ndeysaan ca mbokk yi noonu la demee woon ki nga xam ne moom mooy jaay doole noonu la daanee ki xam ne moom mooy Abou Ndiassé numéro 2 di xale boo xam ne mu ngi ci yoon nañ ko bàyyi xel moom jaay doole waaye kii mu daan tamit démérité wul muy Abou Ndiassé numéro 2 daanaan la bokk ci xale yi wax naa leen ko lamb moo demee noonu saa su di nga gis xale yu génn saa su ne di gis génération yi nga xam ne ñoom ñooy génn tey jaay doole daan na Abou Ndiassé kon Abou Ndiassé démérité woo kii la daan war na la daan demal nga defaru jiwaat nga ñëwaat waaye mbokk yi ni leen ko waxee rek lamb ñu ngi jëm ci koor mais saa su ne yéen a ngi gis combat yi mu ngi taxaw yéen a ngi gis Albourakh Events ñu ngi taxaw taxawal nañ ki nga xam ne moom mooy Sa Thiès ak ki xam ne moom mooy Eumeu Sène taxawal nañ ay combat yu bari ki xam ne mooy Gaston production gis nañ mu fisale ki nga xam ne moom mooy Jackson ak ki xam ne moom mooy Lagrose combat bu neex la combat la boo xamante ne si revanche la boo xam ne Lagrose moom lay jël si ndax Jackson duggoon na fa daan ki nga xam ne moom mooy frère muy Pape Ndoye kon combat la boo xamante ne si combat la bu war a neex ñi nee nañ ki xam ne mooy Lagrose li mu bëree ak Fils de Balla lu mu ci dolli mën na tenir Jackson waaye Jackson xale la boo xam ne dafa nekk ci yoon xale la boo xam ne na ko làmb bàyyi xel parce que gis nga mi ngi def ay preuve kon jóge na ci soq ñu jox ko ki nga xam ne moom mooy Lac Rose Lac Rose jóge ci Fils de Balla ñoom ñaar ñu war a daje kombaa bu neex la Gaston production moom moo ko taxawal. waaye mbokk yi mu dolli ci ki nga xam ne moom mooy booy Niang Fils de dégol boole ko ak xale bi nga xam ne moom mooy Reug Reug combat la bu neex kombaa boo xam ne amateur yi dañ ko doon laaj ñu bëri naan Reug Reug la de ñi naan Reug Reug booy Niang Gaston fexe ba fisele combat boobu noonu kon combat la boo xam ne amateur yi tamit ñu ngi fay xaar bëre ndax ñoom ñaar ñëpp combat la boo xamante ne kombaa bu neex lay doon. mbokk yi wax naa leen ko lamb saa su di ngeen gis lamb di gën a dox ay jéego di teg ay pas di teg ay pas kon lamb mooy bëggal li nga xam ne moom mooy jeunesse bi ndax jeunesse bi yëpp nañuy dund làmb di ko savourer bu baax a baax kon noonu la ñu àndoon ak tey fi nga xam ne moom mooy arène nationale di leen wax ni combat yi neex moo fi am journée bu neex la. bëggee nañ ñëpp di kontaanee ñëpp di bëggee ki xam ne moom mooy Lamine Baara Lamine Baara maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax di la bëggee moom Lamine Baara baay Fall la sama waay la Baara maa ngi lay siyaar bu baax a baax a baax di la jox sa wàcc waay di bële mbokk ami internet ma TV yëpp matu moo nekkoon ci cadrage bi ñu ngi koy bëggee di ko kontaanee bu baax a baax a baax jaajëf gars yi kontaan nañ ci yéen.